mooy naam kër Modou Khari Barhane Awa Sarr nag ba muy wuti soxna tuuruur la dem tuuruur Seck kër Demba Lamine Seck nga xam ne Lamine Yoro mi ko jur moo sañ ci ceekeen sam-sam jël fa jigéen ju wax Anta Farouma Seck Anta Farouma Seck Farouma Diop mooy yaayam Bakary Ndiawar moo ko jur ca ndomba donc day delluwaale am na ja Mbargane Ngay Seck mbër mbargaan anta faruma am ca balla anta faruma kodde anta faruma ak samba anta faruma waaye anta faruma sekk moomu am na ñu mbokkal ndey am ñu mbokkal baay Kani Seck de la bokk Kani Seck tey mooy Ndam Sall Ndiaye ak genn wàllu tey boo duggoon kër si Amadou Bamba ndax sëñ Modou Moustapha lay bokk sëñ Baara ci lay bokk lay bokk sëñ Basiru ci lañ bokk ndax mooy maamu Isa mi nga xamante ne moo jur Njaga Isa nu ba sekk it moom Anta Farma Sekk ñoo bokk bàyyi mooy kokki ak kër Ngura Anta Sekk moo jur Siini Anta Sekk mi nga xam ne moo sëñ kër Siini Jeng gi kon ngaa ñax day wut Farimata Sekk mooy maamu El Hadj Malick Kumba moo jur Makumba mi nga xam ne sax moo sànci Belel kon Belel ak ak Ndiobéne Ngunta cekkeen Samsam ak tur bi ci bokkee ak maam Modou Binta. maam Modou Binta nag ñi ma la wax maamam moom lañ bokk ak ndey ak baay mooy kër baay Bayax Bandey Ndiéy kàtt ga ak kër maam Dieng ba tey Ndiaye Sall aw ci la bokk mooy Lam Xali. Aly Awa Gueye mooy kër Louga Matar Naar mooy ñoom rek ak Tàkkoog Fass ñoom ñëpp di lañ moom. mbër bu Anta nag ma nga xam ne Anta Farouma sekk nga xam ne moog yaayam gay yaayam ñoo bokk benn baay jël fa doom ju jigéen ju ñuy wax Gay am ca Mbargaan Gay Seck Mbargaan Gay Seck nag. mooy maami Kër Matu Binta ndax mooy waajur bu góor Kër Matu Binta Margaan Gay Sekk nag dafa bokkoon ci ñi doon xeex ak Amari Ngoone Ndeela donc munuñ wax jamono ji la faat di tax mais xam nañu juróomi at yi la guerre ba doon duré mi 1790 de 1795 ci la Margaan Gay Sekk faat njëkkutoon na dëkk Njaambur nag moo tax am na gëstu yu ñuy def ndax amul ak njaboot feneen ndax newoon na Jolof ci archive yi muy lu ñu leer ndax temps yi Mbaba Kompas nekkee Bourba Jolof nga xam ne ay 1770 moom ngay Seck ma la woon Jolof parce que benn jarbaatu Mbaba Kompas ku ñu daan wax biram ku jatam ba nga xam ne dañ koy moo ko fa yóbbu woon tuddee na ko doom sax dina ko tuddee tam tuddee na Mbargaan Gay Seck muy bàyyi lobe bii bi nga xam ne dañ koy woy Mbargaan Gay Seck la ko tuddee donc nekkoon na Jolof te sëtam ku ñuy wax mayib demoon na ko kon lu mu ko doon wuti gëstu la laaj moom la ñu seet Mbargaan Gay Seck nag liñ ci xam ne bi ñëwee ñaamu njiit Fall la dem wut fa soxna ku ñuy wax Binta Fall Binta Fall Mayoro Ndaat ak Anta Seck Couté Gouma ñooy seen waajur am ca Mutu Binta Fall Mutu Binta Fall ak juddoom ñu ngi koy datee vers les années 1790 ay deux ans avant wala un an après di Louga la yaraw jaar na gi mais wër na Sénégal di wuti xam-xam kër Modou Binta nag ñu ngi ko sañ ci vers les années 1825 Modou Binta nag bi mu waree wut soxna bàyyi nag la dem kër Modou Ngoy Njaay Modou Ngoy Njaay nag Ngoy Njaay ko jur Ngoy Njaay ma joojo ko jur ma joojo nag juróom faati mbisi ñi nga xamante ne moo njëkk a nekk premier jaraaf di njaamu ci jamono ji daf sukaa bi nekkee tamit di Kayoor mooy bàyyi kon mënu bi da boo ko dàqee danañu bi yorof yàlla loolu la fa jël yàlla ba tey Fataam Maam Dieng mi bokk ak Balla Brane Maam Dieng ak Samba Anta Maam Dieng ma gisee ñoo bokk nawet bàyyi. yàlla awa Balla la ma Fataam am awa Balla moo dem Kokki am ko mayib awa Balla kon mayib awa Balla bu ñëwaatee kër Moutou Binda jël si fi yàlla booba doomam la jël si ndax awa Balla mi jur mayib awa Balla ak yàlla mi jur góor gi yàlla ñoo bokk ndey ak baay muy Modou Ngoy Ndiaye ak Fataam Maam Dieng. far daam maam njàng nag daam Seenaba Njaay moo ko jur day dellu génne Seenaba Njaay nag ak Uma Njaay ak Daaya Njaay ñoo bokk ndey ak baay Uma Njaay mooy maam sëñ Abbas Sall kon foofa la dajee moo di dund Modou Binta nag njëlee yàlla baraan yàlla la ci am ak moor yàlla mbaarig yàlla ngërbu yàlla sàmba yàlla mayib yàlla ak mansaar yàlla dafa dellu nan ngi jël ku ba baxaw faal am jo ku ba gàllu dow mu delluwaat ngi kër moor aram jéeme am fa yoro ku ba gàllu mayib yàlla jolof la desoon njaboot ak matu binda nag après matu gay dana ci dugg ba ci biir mooy baraan yàlla man nañ brosé ne baraan yàlla moom tamit kokki la dem wuti fu dox na amit a jóg nga xam ne Modou Aminta yàllaa am ca Fatou Dame ak Touba Diallo ak Marème Lo moo war yàlla ndaam ko Modou xarit la dem jëli fa xarit baari bu mbaari am fa jaara moom Abdou Xarit ak Binta Fall Samba yàlla dem gi jël fa Fatou Fall mu Modou Touba Diallo maam Sarr Binta am ca Mayoro Fatou Fall Ale Fatou Fall Modou Binta Fatou Fall moo la ak Aminta Lo mbaari yàlla ak Tukkee la jël am ca Modou Asta Gueye jël aram may am ca Binta Fall ak yàlla jël Mbarka Diagne am ju ma tudd Binta ak Barane Lo Asou Gueye Bouba Gallo ak Fakebe mbër bu yàlla Anta Ñaan Dieng la jël am te Mor Anta Ñaan jël Aram Gueye am te Modou Aram jël Maam Dieng war a xambooj am te yàlla ak Koumba Dioum Maam Dieng war a xambooj moom la ak Faati Balla war a xambooj te ñoo bokk ndey ak Faati Balla war a xambooj moo jur jëmbaloo mu jur Balla jëmb mu jur Gaye Balla mu jur sama yaay lañ ne nag nit bu amee kër ndey day am kër baay bu amee kër baay am kër ndey Modou Binta kër ndeyam caareel la sotteekoo Asta Sarr sey ba moo dem kër Waagaan Fall ba tey mu dellu Kajoor am fa Penda Fall Asta Fall Fatmata Fall ak Koutia Kumba Fall Koutia Kumba Fall mooy maami Alburi Jaay Fatmata Fall mooy maami Kocc Barma Asta Fall mooy maami Sëñ Mutala Mbàkke Penda Fall mooy maam yi Modou Binta kon ñooñu la bokkal néew bu tey Penda Fall nag may maam dem kër Yuga Fall yi Kuli ca Bawal kon day delluwaat ca feeñ ya maamam da daan falu am ja Aram Joor Jeng Aram Joor Jeng Njaañu Modou la dem kër Amar Diagne jël am fa Warxa Diagne Sidi Diagne Amar ak Jama Diagne Sidi Diagne Amar mooy Njaañu Njaga Njaañu Modou Warxa Diagne Cambérène la ne kon waa comité dañuy ñëw ak waa Ndiomen am fa Sine Samb Farmata Samb Yacine Samb Farmata Samb moo dem Kébé Samb te Birane Diarra Kébé am fa saa Kébé Farma Samb Dieyna Kébé ak Ndack Kébé Ndack Kébé moo ñëw Louga Kër Demba Awa Sarr am fi daam Ndack Kébé mu sañ di daam kër Moutali saa Kébé Farma Samb am te Ndack Kébé mu naw mu dem ko Sayer ay Sayer Anta Gueye jëfaaleen am fa Mayoro Ndaak ñu ñëw sañ ko yi Mayoro Ndaak nag moo jur Modou Binta mu jur Binta Fall loolu jur Binta Fall mu jur Modou Binta donc Modou Binta daa maamu Kébé ñaari yoon ndax jay na Kébé moo dem ngeen sëy kër ma sëy aale am fa xuteku ma sëy ak soxna sëy ak Samba Jaay la Samba Jaay la moo jur Galaay Njëgu mu jur Kale Penda Alsaan Penda Abdou Penda ak ma sëy Penda kon waa Ceeñ dañ ñëw waa Ndoj ñëw kër Mor Abdou ñëw Koudia Koumba Seye nag moo dem sama kër maam Aane Saraba Gueye am fa juróom-ñetti doom yu barkeel yooyu ñu Koudia Koumba Seye ci waa kër Koudia Koumba Seye muy Siré ak rakkam Anta Seck nag may jigéenam moo jur Binta Fall kër maam moo jur Binta nag comme ni nga ko waxee jamono ji ñu ko sante vers les années 1730 lañ koy defee dëkk boo xamante ne nag ay daara alquran moo ko sañ yoon jamono ji maam moo Anta ñaan nekkee ci la daara yi gënoon a bari parce que man nii ñu wax sama maam ma jëng Anta Fall mi jur sama bàyyi kër mu juddite gi la newoon ci daara ji Maamor Anta Ñaan moo ko indi woon 1928 bi Maamor Anta Ñaan génnee àdduna ci la dem kër maam Cheikh Kabir Mbaye ñu indi fi maam Aale mu yor daara ji sama toggooram maam Anta Njaay baa nga ne kër Modou Binta nag mosuñu am relation ak tubaab yi boo ko dee seetlu 1858 bi Faidherbe bu amee problème ak Tafsir Matar Binta ca Ñombe nga xam ne ñoo bokk benn na cee boole kër Modou Binta moo tax mu ndaw donc 1958 na ko muy dund ndax nee mu fi rombee dañ ne ko lépp ba ay doom ñoo ko nekk te du ñuy mag ndax Tafsir Matar Binta booba moomul ñoom rek. Njuga Anta diggee ko moom mais da doon silmaxa te silmaxa binda moo doon bras droit moom lañ tubaab yi sànki woon ña nga dencoon ca Gorée moo ko euh, l'autre la Amadou Aminta Yalla 1964 archive bi a lañ bind nañ ña nga fa xam naa waxtaan bi comme ay mënoo la ne ay bàyyi ko di ñëw maa ngi jéggalu dagg ko fii Modou Gueye bu ñëwee dana dugg ba ci gër Modou Binta man dama doon indi rek histoire gër Modou Binta di jéggalu kàddu yi lu ci dëgg rek nga xam ne ci man la allahu xasbi li diini xasbi allahu lima ilayhi ihtimaami xasbi allahu